di waajal quatrième combat bi ndeysaan tey nekk samedi 11 novembre 2023 journée Mousna production ndeysaan ngeen am quatrième combat bi noonu ci biir géew bi di dox si digganteeg caatu bawal ak bul jaxle ndeysaan ñu ngi noonu ñaari mbër yaa ngi noonu ci biir géew bi bul mi ngi jógee yaraax ndeysaan ndeysaan caatu bawal yaraax def mobilisation bu rëy ñëw jàppale ki nga xamante ni mooy seen doom di bul jaaxle ñu ngi noonu abi bàyyi waaye sifflé di jox di wax règlement yi lim bañ ak lim nangu mi ngi noonu ndeysaan Caatu Bawol moom ngeen jàkkaar lool waaye bul jaaxle moo féetee gauche abi mi ngi laaj ay sisam ba xam pare nañ waa siffle na ndeysaan quatrième combat baa nekk noonu jaatu bawol arrière na ndeysaan jàppante ne bul jaaxle bul jaaxle takk na ko waaye tamit jaatu bawol ma ngay bañ ñaari mbëri combat bi gaaw na combat bu gaaw doon jaatu bawol mi arrière waaye attention attention euh, attention rëbb na attention Bour Diakhé jël na tàng bi Caatu Bawol génn na si euh, laa ba ji neex na waay Caatu Bawol fi nga àggoon sori na waaye fexe na ba génn si ndeysaan Bour Diakhé day jël avertissement ndax dafa génn dafa jël day jël avertissement ndax dafa génn di wax Bour Diakhé àggoon nga fu sori ndeysaan arbitre bi sifflé diggante Bul Jaxle ak Caatu Bawal attention Caatu Bawal mi ngi nekk ci Waalo Bul Jaxle mi ngi nekk ci Ablaye Diène attention Bul Jaxle jëlaat na ko attention Bul Jaxle dafa bëgg a jàpp Caatu Bawal la ilaha illallah a ah, nañ déglu arbitre di xew nañ déglu arbitre di xew nañ xool arbitre yi lu ñuy wax caatu bawol waaw waaw caatu bawol daan na caatu bawol daan na bul jaaxle laa ilaaha illallah mbot bi rëy na waaye tamit ndeysaan bul jaaxle moo doon mbot bul jaaxle moo mbot waaye tamit xam naa bul jaaxle moo jiitu ndeysaan